ñi ngi leen di nuyu kenn ku ne ci turam ak santam di leen jox seen wàccuwaay jataay bi nag kenn ku ne xam na li ko waral li ko waral mooy sunu kilifa gu fi jógee di sunu mag di Alaaji Coon Ballaago Sekk moom Baye Cheikh Sekk ak soxna Nogoy Ngom yàlla na yàlla dolli leen yërmande fañ ne ak njëggal ci daraja yonente bi sallallahu alayhi wa sallam barke xaadim rasul nu bëgg li nga xam ni moom lañ doon def muy alxuraan diñ doon jàng te kenn ku ne xam na ni ëllëg la koy jariñ ci bàmmeel mooy ñaan ñaan nag dara jiituwu ci alxuraan dara gënu cee am doole alxuraan kon alxuraan mooy lépp kon jàng nañu kaamil bi ci njàngin wu sell ci Ammar, sëriñ Mbàkke Amar ñu gën Ammar. xam ci sëriñ Gànnaar Amar di sunu kilifa nekkal sëriñ Touba ci gox bi ak mbooleem département bi fii fi ñu dëkk nun di ko jox wàccuwaayam bu baax a baax a baax di mamam. ñaanal fan gudd ak ci Cheikh Ibra ak mboolem maamam yi nekkoon ci keppaaru Serigne Touba nu toll nag ci bëgg jàng xatnu bi mu mottali li nga xamante ni mooy ñaan gi nu bëgg nag kenn ku ne fa nga nekk nga teewlu ngir yàlla ak yonente ak jëmmi Serigne Touba ak jëmmi lislaam te xam ni jataay bii kenn du ko jaas kullu nafsin saayixatin mawt te it ñun ñi ñëpp kenn ku ci ne xamoo kan mooy njëkk a ci coon sekk ci bàmmeel ñun ñëpp kenn ku nekk sax faatu ump na la te xamoo ci dara kon bu fi jógee ñu koy ñaana lu mu gën a sell gën a baax nu xam ni jataay bi du jataayu puukare du jotaayu wax naka sudul noonu du jotaayu jëf naka sudul noonu jotaayu toog la teewul sa digganteeg sa borom xam ni lii danañ la ko defal te kenn ku nekk booy dund ci kaw suuf boo sañoon ñu teral la waxuma boo duggee ci bàmmeel suturaal la kon nañu xam ni kenn ku ne am nga ci wàll bu dee jigéen ñi kenn ku mën a yor course di julli ceen Yonent bi dara gënu koo kawe te ci la lépp ne képp koo xam ni mën ngaa jàng faatiha ak ay lixlaas nga jàng ko képp ku mën def ay basma la nga def ko fiddaawul ko yàlla yërëm ko jéggal ko xare ko ajjana ci barkeb borom Tuubaa nu bëgg nag ñun ñëpp nu teewlu ci njiital ab lay Naar sekk mi nga xam ni mooy borom kër gi tey di Baye Cheikh Seck toog toogaay Baye Cheikh Seck di ko ñaanal yàlla yàlla na yàlla eggale yéeneem mu ànd ak ay rakkam yi nga xam ni ñoom la fi dese yëpp sunu borom may leen kattan ak man ak wér ci barkeb Cheikhul Khadim kaamil bi ñu ciy dugalaale mboolem njabootuk Thione Ballago sekk yàlla musal leen te sàmm leen te suturaal leen te li ñu yéenee woon liggéey seen diggante ak seen wayjur sunu borom may leen kattan ak man ba ñu eggale ko yàlla eggale yéene yooyu yëpp ka nga xam ne it mooy soxnaam ne di liggéey yàlla nattoo ko mu war a toog maanaam ñeenti weer ak fukki fan li mu tàmbali ci bismillahi rahmaani rahim moom soxna kenn yàlla na ko eggale ci alhamdulilahi rabbil alamin te li mu ko ci ñaanal yàlla na ko yàlla nangu te nu bokk ak jullit yëpp loolu daal mooy jotaay bi di ziare soxna Xadi Sekk mi nga xam ni ñi moo fi mag toog ci sunu ginnaaw ànd ak ay rakkam yëpp kon nu bokk teewlu sëriñ Mbàkke Amar jàng xatnu bi kenn ku ne jàng faatiya fa nga nekk def salaatu ala nabi jàng ay lixlaas ñu déglu sëñ Mbàkke mu jàng xatnu bu nu paree nag lu ñu cay dolli ci ay kàddu wala am njàngum xasida ñu def ko te fas yéene koo defee tasimoo bi sunnati yaxoodunaa lil jannati na sell te tegu ci aw yoon te yàlla tax ngir jëmmi seen bi asalaamaaleykum wa rahmatullah di ziar sëñ Abdou Fall sunu kilifa sëñ Pësi ci am sunu kilifa ñoom ñëpp ñu ngi ci jataay bi te ñooy kilifay koñ bi fi ñu toll nii yàlla yàlla defal leen jàmm di ziar ñi doon jàng alxuraan ñëpp dañ jox seen wàccuwaay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 والعنقود بالبلة من شر ما خلق ومن شر حاسد إذا وقب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم والعنقود بالناس مالك ناس إله ناس من شر وسواس الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله ونسيم وبلغ رسول النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا ومولانا من الشاهدين اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم وانفعنا بالآيات والذكر الحكيم واجعله لنا حجة يوم الدين اللهم انفعنا بما صرفت فيه من الآيات وذكرنا ما دربت فيه من المصلات وكفي بتلاوة النصيحات إنك مجيب الدعوات اللهم تقبل منا فهم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من سهو أو نسيان aw tahrifin aw taqdimin aw taxirin aw ziyadatin aw nuqsanin aw tawilin ala xayri ma anzaltahu aw taajilin inda tilawatihi aw kasarin aw sayfi lisanin aw wuqufin bi xayri wuqufin bi xayri waqfin aw idixaamin bi xayri madxamin aw isaari bi xayri bayan xattuku mina ala tamami wal kamali wal muhadi bin kulli arhan وسقنا قدل من قرم دين أقوهما أي والقلب واللسان وأبنا الخير والسعادة والبشارة والآمان ولا تحملنا بالشر والدلال والطغيان ونبنا قبل المنايا من من قبل والكسلان وأمنا من أصحاب خبري ومن سؤال منكر ونكير ومن أكل ديدان وجوهنا يوم البعث تحقيق كتابنا من النيران ويمن كتابنا ويسر حسابنا وسقم ميزاننا بالحسنات وثبت أقدامنا على سعر مسكنا وسط الجنان وسغنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأكرمنا بلقائك يا ديان آمين يا الله اللهم اجعل القرآن العظيم ربنا قلوبنا وجل أذاننا وسائر منا وقائدنا وسائحنا إلى الجنة النعيم اللهم اجعل انسنا في الوحشة ومصاحبنا في الوحدة ومصباحنا في الظلمة ودللنا في الحيرة ومنقصنا في الفتنة واعصمنا به من الضيف والأهواء والكيد أداء يا رحمن يا رحيم اللهم اختم بالسعادة آجالنا وأخذ بالزيادة آملنا واقل بعافية قدونا واسنا واجعل إلى رحمتك مصيرنا ومعلنا وابن سجال عفوك على ذنوبنا ومن علينا بستر عيوبنا اللهم اجعل تقبل كسرنا واستغفر بصورنا واعتقادنا وامن من الجوع وقف بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم بلغ صواب ما قرأناه والنور ما ترونه من وجه سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام ولأرواح آبائه وأمهاته وأزواجه وذرياته وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وهدية وأسلة ورحمة متسلة إلى روح عبدك سورة الله اللهم بلغ صواب ما قرأناه ونور ما ترونه لروي سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام ولأرواح آبائه وأمهاته وأزواجه وذرياته وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وأدية واصلة ورحمة متصلة إلى روحه عبدك سليم بن بسك اللهم بلغ الصواب ما قرأناه ونور ما ترونه ليوهي سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام ولأرواح آبائه وأمواتي وأزواجه وذريته وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وهدية واصلة ورحمة متصلة إلى روح عبدك والبلاغ به ولأرواح آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ولأرواح جميع المسلمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم نبينا وإمام المرسلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام آمين آمين والحمد لله رب العالمين فاتح الصلاة على النبي نبوك داغ فاتح الصلاة على النبي wax ni coon baal na ko sekk yàlla na ko yàlla yërëm te jéggal ko xare ko àjjana yàlla na yàlla yombal laaj bi ci bàmmeelam ci barkeb Cheikh Xadim wa ala alihi wa sahbihi man wala mbokki jullit yi asalaamualeykum wa rahmatullah ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp kenn ku ci nekk ci tuuram ak ci santam ak ci jëmmam di leen siyaara di leen baalu xaq bal nañu ñëpp xaq yàlla na yàlla boole ñu bal di ñaan yàlla alxuraan ji ñu fi jàng yàlla na yàlla nangu ko yàlla na yàlla nangu ko bu ko nangoo yàlla na ful ko bu ko fulee yàlla na jox ko sayidina muhammad sallallahu alayhi wa mu teg ko ci loxol maam borom tubaam mbakke mi nga xam ne moo nekkoon naanuwaayam moo nekkoon wasiilaam mu teg ko ci loxol sunu frère Thione Ballago Seck léegi bi sëriñ gànnaar di jàng xatmu bi dafa wax ne allahumma balligh sawaaba ma xara'naahu wa barakata ma talawnaahu min kitaabika al azizi rahmatan muttasilatan ila ruuxi sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallama wa ila arwaahi ashaabihi radiallahu anhu ajmain wa ila ruuxi abdika coon bàllaago sek léegi yaa ko wax sëriñ gànnaar yaa ngi ñaan yàlla naan ko yàlla ñu ngi lay daagaan ci sa mbaax ak ci sa tedd nga ak ci sa lewet ak ci sa yërmande alquran ji ñu jàng na ko nangu boo ko nangoo na ko jox sayduna muhammad mu seddoo ko ak ay saxaabaam kenn ku ci nekk teg ko ci loxoom muy ndabal teraanga ñoom ñëpp ginnaaw buñ leen ko présenté ñu teg ko ci loxol maam borom Tuuba Mbàkke mu jox ko coon seek yàlla na yàlla nangu ko loolu rek nag doy na loolu rek doy na euh, yenent bi dafa wax ne من قرأ حرفا من القرآن فله الأجر والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف دول الله ينتبع ينتبع صلى الله عليه وسلم نينا كو جانغ بن عرف شي القرآن ما دل فكي تيابا خالي بي سوغ دوغو با yàlla bind fukki tiyaaba fukki tiyaaba yi ku ko moom way juram sëriñ bi ne ko siin xale bi ne siin yàlla bind fukki tiyaaba jox way juram bu dee ku majeur la nag boo ko jàngalee sa bopp xaraf boo jàng yàlla bindal bindal la fukki tiyaaba ba noppi nag yonent bi neewuma boo ne alif laa miim yàlla ne benn de boo nee alif yàlla ne benn yàlla ne dix nga ne laam mu ne vingt nga ne miim mu ne trente nee na noonu la koy toppee ba xarafi alxuraan yi jeex araf boo jàng yàlla bindal la fukki tiyaaba waa ñaata junniy lettre moo nekk ci alxuraan. un million ñaata junni ci ay xaraf moo nekk ci alxuraan xaraf bu ci nekk yàlla mark ci fukki point ah. déedéet ëpp na loolu. ëpp na loolu ay dama ko jàppatul waaye ëpp na loolu. waxuma ay xaraf yi laa wax kay ah kay xaraf yi dama ko dama koo jàppul ci sama bopp waaye waaye am na fu ma ko noté euh, euh, euh, xaraf yi xaraf yi xaraf yi la yeneen ti xaraf bu boo ci jàng yàlla bindal la fukki tuyaaba waaye yal na yàlla nangu ko sëriñ gànnaar nii nga ko ñaane yal na yàlla nangoo ko noonu am nañ ci yaakaar nag parce que alquran alquran yonent bi salaay salaam nee na bu ëllëgee dafay ramm ñoñam te dafa dama bëgg joxe benn seede buy wàññee ne coon ci ñoñ alquran la bokkoon ngeen baal ma tuuti rek ndax yonent bi dafa wax ne ab Bayeko, bu fi Yimudon wax yu yi mu def bu ngeen ko xamalee safaan bu leen ko wax ab jullit bu fi bàyyeekoo jotaay yii lu baax li ngeen ko xamal wax leen ko ndax malaayika yi dan koy di dañuy def rapport te dañ koy jébbal yàlla yàlla ni li mbokk yi wax loolu la loolu moo waral ma bëgg am seede bii may seede ci sama frère bi fi jóge muy Thione Seck ne ci ñoñ alxuraan la bokkoon ku liggéeyal alxuraan la loolu nag du ma ne ma sàmba du ma ne ma demba man la ak moom directement daara internat alxuraan ju ma ubbi ca yoonu buun tudde ko daarul hijrati nabawiya bari xamuñu muy daara daara taxfisul quraan goo xam ne xale yi dan fay wattu alquraan ma jiite ko nekk directeur bi ubbi ko muy kër gu mag ma dem ba am fa ay arrière borom kër gi di ma génne buy ñëw day kap lay sol kap mel ne ku naan génn rek daara ji nar a toj ma xool xool xool xaw ma fu ma jëm ma dem seeti coon bàllaago mii ne ko dama am daaray alquran ju ma ubbi ca route de Boune daara ja nag dama fa am ay arrière ba ñu may waaj a génne ma bëggoon nga jàpp ci te yàlla tax ci barki alquranul karim mu ne ma ñaata ngay fay par weer ma ne ko nangam mu globaliser la ma am ci ay arrière jox ma ko ma dem fay daara ja coon sekk defal na loo alxuraan kon kooku bu ma nee ci ñooñ alxuraan la bokk am naa fu ma teg sama tànk loolu man maa koy seede parce que sama diggante la ak moom kon alxuraan jooju taxoon mu def loolu yàlla ne alxu yàlla na yàlla nangu alxuraan bi yàlla na yàlla sotti ko ci bàmmeelam yàlla na yàlla defal ko mba na yàlla defal ko mba yàlla na yàlla defal ko mba mba moo gën njéggal mba moo gën njéggal njéggal mooy da ngay jóge Banjul jëm si fii duy sa oto furóot ba mu fees ñëw ñu ne la kiir tim poste kër ayib sonnal laa sonna la sonal bëcc bëccee la ba nga yaakaar ne kaso rek moo ci des chef bi génn ña la dinañ la baal set fois-ci mais prochaine fois a ca demal mhm. kooku dañ koo jéggal ah. njéggal tiitaange moo koy jiitu mba nag da ngay ñëw rek ñu yëkkati barrière bi ne la jàllal yàlla na yàlla defal ko mba ci barke alxuraanul karim yàlla na yàlla defal ko mba baal ñu xàq nag ci guddal bi dañu waxe rek sunu sunu cofeel sunu cofeel ci ki bàyyeekoo yal na yàlla yërëm ko ab lay Naar ñu ngi la koy jàll Mandiaye Mandiaye maa ngi la koy jàll léegi la ma Mandiaye di wax li mu bokk ak famille bi loolu man xaw ko woon Mandiaye maa ngi la koy jàll maa ngi koy jàll famille bi yëpp di ko jàll quartier bi yëpp di ko jàll umal islamiye yëpp di ko jàll président de la république di ko jàll première dame Marème Faye Sall di ko jàll mbooleem sénégalais yi di ko jàll umal islamiye bi yëpp salaamualeykum wa rahmatullahi wa